bu ngeen jëlee seen temps lu ndaw ndaw tey ngeen ñëw pour sigil sunu jigéen ñi nga xam ni amuñu dara lu ñoom ndax ñun dañuy wax ni yëfi waa Kayaar lañu kon ku yëg waa Kayaar yaa nu moom yaa nu yóbbaale fu neex ndax amuñu dara lu Kayaar te Kayaar rek a ñu saf Kayaar gii nag yaakaar naa ni ku gis jigéen ñi nii ñu toogee xam ni li nekk gëm nañ te lim nekk am nañ ci yitte def nañ ci farat yaakaar naa ne boo yeewoo Kayar trois heures du matin ay jigéen ngay gis ñu yor seeni siwo yor seeni paan jëm géej donc yaakaar naa ñooñu kuy dimbali ak kuy jàppale yaakaar naa ñoo jara dimbali ñoo jara jàppale amaluñu benn institution financière bor ba ci DER bii ñu leen jox ñu koy fay ni ko war a fay donc yaakaar naa dama naan gàcce ngaalaama seen jigéen ñi kontaan nañ ci yéen bëgg nañ ci yéen dina wax monsieur le ministre ñii toog ak ñii ñëw ak ñi bëggul a ñëw ak ñi waroon a ñëw te ñëwuñu ñoom ñëpp ñu ngi lay dalal jàmm di la wax asalaamaaleykum marhaban ahlan wa sahlan ñëw nga sëb dëkk ndax yaakaar naa bu ne maire point 1 e moo ñëw Kayar dafa ñëw fi mu war a ñëw. ndax maam jaraaf mi for mi for foole dëkk bii yaakaar naa foofu la bàyyi koo ñëw fonde Kayar ñaari maam yi benn la du ñaar du ñett kon nag fii ak loo maa def ci pêche yaakaar naa loo def ci Kayar sànniwoo ko ci say mbokk nga ko def jigéen ñaa ngi nii nag yaakaar naa ne taxawaay bi am ci sanu wet am ka ci wetu président de la république kenn du ko nattable ndax buñ gagné élection yi largement jigéen ñii ñoo tax li ñuy xat-xat tey nekk ci jafe-jafe tey nekk ci aw tiis mënuñu woon a bay ñëw teewal leen sigil leen tatagal leen sargal leen ndokkale leen jërë ngeen jëf yéen jigéeni Kaar yàlla yàlla fay leen ci loolu monsieur le ministre ñu ngi remercier acteurs de la pêche yi nekk Kaar yëpp collège ligneur collège Seine Tournante ak képp koo xam yàlla ba ci ak ñi xam ñooy rameur yi ak femme transformatrice yi yaakaar naa présidente Matinda ma nga ne toog di nuyu micro mareyeurs yi seen i présidente ñu bëree bëri tey jii bu ñu demee yàlla may leen xel ban boole seen i kuréel yëpp feeñe rek pour ànd nekk benn yaakaar naa loolu mooy développement te loolu mooy mën a dimbali état pour ñu mën leen a jàppale ndax pàcc pàcc bu nekk day naqare jàppale mais comme yaakaar naa ànd nañ ba juboo def benn fédération monsieur l'inspecteur jàpp ji ba ñu ëgg si fii naa li ci des la balle est dans votre camp la balle est dans votre camp mooy ngeen génne financement yu am solo parce que Kayar ñu xamuñu financement ministre de la femme Kayar xamuñu fi benn financement te loolu dañ ko war a xam dañ cee war a jot ndax c'est notre droit et on le réclame jigéen ñu ni financé leen ay 30 millions wala 100 millions te ñu ngi dégg ñu ni jigéen Sénégal ñu leen di financé ay 100 millions ay 30 millions ay 50 millions di leen ko jox mais ñoom bokkuñu ci lan moo tax bokkuñu ci nag loolu lañ bëgg à partir d'aujourd'hui loolu ndax nit soo defee li nga war a def da war a laaj li war a laaj def ngeen li ngeen war a def seen jaan wàcc na da ngeen a war a laaj li ngeen war a laaj te le ministre dégg na ko dina ko jotal président de la république mu xam ne Femme Kayar ak ministre de la femme Femme Kayar dañ leen war a jàppale dañ leen a war a taaw dañ leen war a jàppale ñu ngi sant di gërëm monsieur l'inspecteur départemental di sant di gërëm le coordinateur du CLPA monsieur Mor Mbène sanu rak sanu sanu frère dañu ñaan yàlla yàlla def ko mag ndax loolu rek ko mën a ñaanal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di leen baalu àq di leen baal. di ñaan suñu borom yàlla nañ ko déglu s'il vous plaît. di jiital si nuyoo bi suñu maire sama mag sama xarit Alioune di teg monsieur le ministre de la pêche et de l' économie maritime monsieur Alioune Ndoye di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Thiès monsieur le préfet di nuyu l' inspecteur départemental des pêches di nuyu mboolem notable yi parce que man damay faral di wax ni Kayar suñu borom dama fee defal lu jafe damay wax ni ku fi am 60 ans sama xarit nga ci dëkk bi loolu nag yàlla moom moo ma ko baaxe ma ci sant yàlla bu baax di nuyu mbooleem jigéen ñi su ma nee jigéen ñi nag mënoon na maa taxaw di lim mais duma ko def dama jël nuyoo bi teg ko si loxo présidente Khouré Gueye Ndoye mu tegal nu ko si loxo yi mbooleem présidente GIE yi monsieur le ministre bi sa tey ji dafa nekk bis bu am solo. et histoire dina ko retenir ndax am na loo xam mënuñu kaa bañ a fàttaliku bala ñoo commencé suñu wax ndax dañoo judd nekk xale di jàng école di suñu yaay suñu maam yi ñu kuréelu doonoon ay jàmbaar lool nga dem sa micro mareyeur ya nga fekk fa ay jigéen yoo xamante ni ñii suñu borom dogal nañu jiitu yal na yàlla suñu borom yërëm leen ku mel ni suñu yaay maa xujjandoo yi ku mel ni. suñu yaay Marème Ndoye ku mel ni suñu yaay Fatou Gueye Niang ñoom maam Ngoone Ciss ak Seynabou Ndoye ñoom mère Yacine Sary ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo génération noonu ci tefes gi ñooñu ñoo njëkk nekk micro maraichers yi Kayar ñu ngi leen di fàttali di ñaan ñi jiitu yàlla na yàlla yërëm leen ñi fi des yàlla suñu borom wéral leen. mënuñoo dem tamit te waxuñu monsieur le ministre parce que ku wax Kayar xam ne napp la ak mbay ni jigéen ñi takkutoo woon dem si géej gi noonu la ñeneen takkutoo woon ne si tool yi. dañ si lim ñaar rek ku mel ni suñu yaay njaaña njoon yàlla na yàlla yërëm ku mel ne suñu yaay abi Diop yàlla na suñu borom yërëm leen ñi fi des yàlla na suñu borom bàyyi leen fi mënuñoo dem nag te waxuñu si transformation artisanale yaakaar naa loolu suñ ko waxee xel yëpp dina dem si maire député suñu maam Ndumbe Seck ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko yàlla na ko suñu borom jéggal suñu yaay suñu yaay suñu bàjjen yaay mbay ñang yàlla na suñ boroom yërëm ko mais kenn mën la wax siin te waxul soxna joor Diouf yàlla na suñ borom yàggal taxawaayam di gërëm di sant seen ñaari présidente yi nga xam ñoo fa nekk tey muy suñu yaay Mati Ndaw ak suñu yaay Koddu ak ñi àndal ñëpp. waaw monsieur le ministre xëy na buñ ko waxee dinañ wax gestion de la ressource ndax yàlla dafa dogal ñu jaboote ñëpp yor kàddu ñëpp kon bu ñuy wax suñu wax mën ñu ko tënk il faut ñu yaatal. monsieur le ministre fi mu taxaw histoire dafa am lu fi retenir fii ma taxaw di wax tey fi la suñu rak suñu frère suñu doomi ndey suñu doomi baay Youssoufa Ndoye fii lañ ko dóore woon bal mu wàcc lenn dong moo waraloon deewam googu joxe bakkanam googu mooy gestion durable de la ressource moo ànd ak ak vingt neuf personnes yoo xamante ne ba tey jii ñii ay handicapé lañ amatuñu sax métier mënatuñoo liggéey loolu mënuñoo taxaw fii te waxuñu ko su boobaa day nuuru ni ñun dañoo fàtte démb te mag ñi ñoo ne ku fàttali la fal sa folleeku day bett kon mënuñoo taxaw fi mukk te fàttaliwuñu loolu ginnaaw loolu ñu ngi fàttaliku si napp gi suñu bàyyi daaw gay di ko ñaanal yàlla na yàlla suñu borom yërëm ko suñu bàyyi Ablaye Gueye Diop suñu bàyyi Ali Ndiaye yàlla suñu borom yërëm leen mënuñoo bañ a wax nag suñu bàyyi yi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo fi ne dinu gunge ku mel ni suñu bàyyi ndongo ñang di sama maam mi nga xamante ne luy luy conflit si tefes gi moom moo koy gérer tàyyiwul euh, jaaxlewul heure boo ko woo jóg bàyyi paate yàlla suñu borom yàggal leen fi ginnaaw loolu ñi ngi wax ni ñi ngi nuyu suñu bàyyi bolle njaay ak mboolem kilifay dëkk bi mënuñoo bañ a wax ñenn ñu yóbbaale ñu si des mais nag dama ni lëg su lekkee aloom naka gërëme cooy nit soo demee ba yëkkati ku taxaw tàllal sa ñu dénk la dafa am ku la déy wala am ko la jàngal ndax nit mënut a xëy xëy tari dama ne Alaaji Moussa Kane yàlla na ko yàlla fay ndax bis bu ma demee ba ñu ni CLPA ma yëkkati sama loxo Kayaar gépp wóolu ma dénk ma c'est parce que moom moo ma doon tetti fu ñu ko joxoñ mu yabal ma fa ko joxoñ mu yabal ba bis sa tey jii ni Sénégal amul fu ma ñëwul a taxaw yëkkati sama loxo wax te fu ma waxee ñox ñu ni kii xam na li muy wax kon baay As maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla na la yàlla wéral monsieur le ministre yaakaar naa ni ñaari point lay yaatal rek ci li si des bi si jiitu mooy Kayaar yàlla suñu borom dañoo dimbali baaxal ñu jàppale ñu su mag ñu baax ñu xàll yoon wu yaatu Kayaar ay liggéeykat ñoo fi am Kayaar amul banditisme Kayaar amul agresseur Kayaar amul sàcc yeewuñu doomi Kayaar ci sàcc yeewuñu doomi Kayaar si agresseur yeewuñu doomi Kayaar si jël moomul Kayaar yaakaar naa ni yal na yàlla yërëm le député maire Moussa Gueye ak le député maire Ndiassé Ka yal suñu borom doole si ak le maire suñu bàyyi musaan Ndoye mënuñu leen a fàtte yal na yàlla yërëm leen. damay ya wax ni bis bin Sénégal di wax le M23 réew mi di tàkk fu ne honorable ma Moussa Gueye dafa taxaw assemblée nationale devant tout l'hémicycle daan ne boo leen demee dëkk yëpp na tàkk ba mu des Kayar ndax foofu liggéey lañu xam ab chômeur ab sàcc néew fa ab agresseur néew fa ay liggéeykat ñoo fi nekk kon ñu ngi rendre hommage jeunesse su Kayar bii yëpp suñuy nawle suñuy morom yëpp ñu ngi leen di rendre hommage mais monsieur le ministre ñu lay dénk loo xamante ne si ñun moom rek lañ am mooy suñu bu biso en or mooy suñu teraanga moom la ñu yaakaar ginnaaw yàlla suñu borom ndax loolu lañu ñu yàlla booleel mooy napp ak aada ak cosaan gi la pêche artisanale monsieur le ministre Kayar ñu ngi ci milieu campagne de pêche. campagne de pêche bu Kayar da doon démarrer novembre di jeex mois de juin mu doon neuf mois de campagne yoo xamante ni territoire du Sénégal amul fu nit dul jógee ñëw Kayar campagne si population Kayar bu dee vingt cinq mille en période de campagne day da koy triplé gaal bu fekkente ne mille trois cent deux pirogues la suñu demee ba période de campagne yi dem ba trois mille pirogues muy gaali mbaal di gaali ngët tey jii monsieur le ministre am nañu jafe-jafe comme yàlla dogal na nga ñëw ba suñu kanam il faut ñu wax la suñu jafe boobu jafe-jafe bi mooy lan la raréfaction des ressources ñun de ñu ngi dégg si réew mi ñu ni jën am na mais boo ñu wàccee fii si tefes gi nga xam ni Kayar day gis suñu jën te ñu ngi si jaaxle gu mat sëkk boo ñu demee ba gaali Kayar en pleine campagne de pêche ñu takk Sénégal ñi dem Joal ñi dem Cap Skirring ñi dem Kafountine ñuy nappe ji foofu ñu ni jën am na loolu yaakaar naa bu ñu ko waxee ñun saaga lañ koy jàppe ci ñun loolu nag monsieur le ministre yaakaar naa ne ñun de am nañu si yaakaar ni di nga ci jël ay pexe ndax li tax mooy pêche artisanale sonn nañ te li leen gën a sonal mooy la pêche industrielle mooy gaal yi bato yu mag yi nga xamante ne si ñoo leen ëpp doole man si géej gi lu nu mënul di def lu ñu deful xañ leen lépp loo xamante ne tey jii seen teranga la loolu boo ñëwee ba fii te waxuñu la ko du doon dëgg si ñun parce que il faut ñu wax la ko ci kanamu Kayar ñu xam ne wér na sa bureau wax la ka jàkkaarloo noonu yow wax la ka daje nañ si penc w la kon bu ñëwee ba suñ biir dëkk nan jàllalewaat population Kayar xam ne liñ ñu yóbbantu woon ci yow yóbbu nañ ko ba mu egg si mooy lan bateau de pêche yi vraiment sonal nañu dina am lu ñu si teg nag ci bateau de pêche yi mooy jafe-jafe bi ñu am monsieur le ministre surveillance Kayar bii benn volet de surveillance la ñu am day surveiller 171 kilomètres carrés tey jii volet bi bu tëmboon fii parce que damay faral di dégg nga di ka wax mooy nii la pêche artisanale am nañu ñu effectivement am na Kayar dañ fiy tere li ñuy wax monofilament loolu moo waraloon yu sondoo joxe ba kenam fii pour loolu dañ. moo ne monofilament boobu tey jii ñu ngi ko war a def 29 kilomètres zone mboor boo demee fi 3 kilomètres ñoom ñoo ngi fii bu ñuy ñëw façon arme bu ne la ñuy yor bu ñuy ñëw lu nekk la ñuy yor bëri de surveillance bu tëmboon fii 2 kilomètres ñu daaxaar leen ñu daw teer monsieur le ministre boo ko liggéey looyu ba pare dañuy ñaan nga jox ka ay ay jumtukaay surveillance bi fu nekk kenn ñu métu la tëmb dem na ba mag ñi dañuy wax yéen a mujjee puso bu mu réer déedéet puso démb ak tey moo bokkul lan moo ko waral mooy ñi ngi bu ñu ñëw fii dañuy doon une quarantaine de pirogues yor seeni i armes te képp kuy kilifa rek yaakaar naa jooytu nan la loolu ba si yow ministre bi amul ku dëkk si réew mi nekk si napp gi te jooytuwuñ na jafe-jafe bi ñu am si surveillance de pêche bi loolu nag boo teewee fi tey ñu wax la si population am nan yaakaar ne di ngi si jël ab solution définitive parce que liy am fii bëgguñu li amoon 2005 am 2005 kenn ñaanatul yàlla li amoon mu mooy Kayar gépp jóg di jàkkaarloo beneen population mu waral ay nit ñàkk si bakkanam ay nit gaañu si te xale yu ndaw yi nga xamante ne ñun ñoo toll fañ toll woon 2005 bésab tey ji ñoom bés bu yàlla sàkk ñu ngi préparé wu parce que dem nañ ba wóolootuñ ñun ñun jiital di def seen réunion di préparé wu ni lii bu ko kilifa yi fajul ñu faj ka ñun nag ñun sunu li may wax naa sunu jaan wàcc na sunu jaan wàcc na mooy lépp lu ñu war a wax wax nañ ku ñu war a bind bind nañ la ku ñu war a jox jox nañ la ku war a yëg yëngani am nañ jafe-jafe jafe-jafe nag boo ko joxee say kilifa ba pare li des mooy nga toog déglu leen bañu faj ka suñ ko mënee faj buñ ko mën la faj nag CLPA lu baax la parce que organe de gestion la ñuy wax ko gestion ci Sénégal mu nekk lu am importance mais moo li dañ ñuy wax ne bi CLPA ñëwee lañ am problème ndax ñoo tey ñuy fajal suñu bopp fajal suñu bopp nag kilifa yi wax nañ ba jëlee ko fi mais bu nu cuunee dina fi dellusiwaat te lu jur du baax loolu nag monsieur le ministre ñu ngi la koy jooytu bëgg nga dimbali nu si bala ñoo dellu fa ñu nekkoon fi may jeexale mooy jigéen ñi monsieur le ministre comme li ma wax jigéen ñi yàlla suñu borom de dimbal ñu réussir lu jafe muy la fédération bu njëkk li amoon mooy kenn ku si ne yor sa kuréel ne si roxo bi di wane ni yow la ñu dem ba jëkk ba si yàgg xool gis ni occasion bi doonatul man la mais ñun la la moo waral ñu fédéré boole seen déem ak seen Dakar tënku ci benn kuréel muy la fédération active des femmes de Kayar monsieur le ministre ñooñu. soxla nañu si financement yi nga xamante ne moom la état du Sénégal di joxe ñu ngi gërëm président de la république parce que gis nañ que jigéen ñi ñu di leen jàppale si réew mais comme li ko monsieur le maire waxee léegi seen bopp ci ministère de la femme jigéen ñi Kayar gisaguñ seen bopp si financement yi ne si réew mi DER bi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax a baax parce que comme ni ñu ko waxee ba nu joxee gars yi ñu séddale da nga ne naa yaxanal am na ñoo xamante comme ni ko tey jii ñu ngi si 1100 euh, ñu ngi si cent 112 GIE de 10 personnes. te 9 GIE ñoom ñoo am ñoo bénéficié si li nga xamante ne mooy DER bi kon deer boobu loo ko gën a mën a yaatal ba jigéen ñi gën see man a jot mais aussi ñu mën leen a dimbale ci li nga xamante ni mooy oto bu ñuy utejee jën di jaayal seen bopp maa ngi sant ñëpp di gërëm salaam. alhamdulilahi rabbil alamina allahuma salli ala seydina muhammad mbokk yi maa ngi nuyu monsieur le maire Alioune Ndoye yaa sa équipe municipale maa ngi leen di nuyu monsieur maa ngi nuyu le gouverneur ak sa li gouverneur maa ngi lay nuyu ak sa délégation di nuyu sous-préfet di nuyu ñëpp maa ngi nuyu mareyeur yi góor yi maa ngi nuyu képp ku fi ñëw ci bis bi di nuyu les micro mareyeurs jërë ngeen jëf ndax su ma mënee taxaw di wax fii bu ngeen ma jiitaloon fakastal ma kon lii du am monsieur le ministre ñoo ngi lay xamal ni ñun suñu kuréel gi nan nan ko danoo ñëwoon yor suñu carte micro mareyeurs ñu di ko def pour fédération def fédération bi ñu defee fédération ñu ñu am nombre bii nga xam ne moo nekk tey tax bi ndax boole li may na naka dem sa ministère bi nga recevoir monsieur le ministre ñu lay xamal la ñun jigéen ñi Kayar ñoo ngi sa ginnaaw ndax pêche bi dong moo nu ñoom monsieur le ministre ñoo ngi gërëm sunu naataango yi nga xam ne ñoo nu jàlle ko si fii muy sunu góoru mbootaay moor Mbeng Baye Diop Fall Alaaji Moussa ak inspecteur Mballo ndax inspecteur Mballo damay liggéey moom ci kuréel gi grâce à moom suma ma am lii ba am fu ma aw moo ma tette aw ma fu aw ndax man la ma la ko dem na xaw ma ministère ndax suma ma fekkoon ni na ma moom mu may jay ba may dugal si leen duma ma ko dugg ndax man doomi Kayar laa dama am bañ ndax damay bañ monsieur le Mballo ànd ñun di liggéey liggéey bu rafet ànd leen waa Kayar ngeen bëgguma ko fi ñëw and fi coow yéen a moom seen dëkk. lu may def yéen laa koy defal jaa jërëjëf monsieur Mballo ndax man naam wala mbaa doon samam xel samay gune seenam xel ne la mbaa kon nu taaroon nu ko mel kay wax ne leen ko yéen ay jàmbaar di teel a xëy du guddee wàcc jërëjëf monsieur le ministre ma lay xamal ni inspecteur bii fi nekk lii mu liggéey ànd ak moom moom la ñu wax bu liggéeyoo la na leen en tout cas ñun su suñu kuréel gii ñu wax la neen waa lii la ñu gis ak suñuy càmmañ bañ nan ko danaa woo leen Mor woo leen Baye Diop Fall woo leen Alaaji Moussa ngeen di xelal tey yéen gàcce ngaa la ma bon ndax bu ngeen nu xelaloon loo xam ne dañuy xëy di rayante kon lii dul ko am tey monsieur le ministre ñu xam ne booloo mooy dëgg ndax ku booloowul doo am dara te doo dara ñun ñëpp danoo jël suñu kàddu tënk ma ko du maa fa dàqa wax maa fa dàqa jàng yàlla lu mu dogal moo am waaye wóolu ngeen ma yàlla na leen yàlla fay lu ma mën nag yéen a ma taxawee di wax grâce à monsieur le ministre ñu nekk ci service de service de pêche li ñu fay yóbbu mooy suñu kuréel gi doxunu laneen takk ni tette wan nanu yoon ndax su suñu wan woon yoon di dinañ arrière ndax ñun jàmm lañ bëgg te jàmm lañuy dox ndax suñuy kilifa jàmm lañuy dox maire Gass Ndoye moo fekk commune def ci lu kenn deful ñii di noonoo mu jubale leen ba ñëpp doon benn ko ñi moo foog leen mën a boole kaak nag dooleem boole lépp defal na ko jox nu oto wool nu ay ministère ak ay naataangoom wala ñëw taaral bis bi fi defuñu ci dara monsieur le ministre ñoo ngi lay gërëm di la sant ndax accueil ba nga aaree këyit démb neex na boole kaat enveloppe 1 million jox na ko ni jigéen ñi Kayar maa nekk seen ginnaaw seen kanam fan maa arrière ndax da ngeen a ñëw nii ngeen ñëw ànd seen discipline bu nu ànd wala discipline kon loolu duñ ko am kon jigéen ñi nan leen takku te liggéey taxan liggéey wóor te nekk ci dëgg takku valable mën a liggéey kuréel gi nag tëjuñu ko. ñoo ngi ko xaalal ñëpp ku ñëw dugg waaye na leen bokk lay bokk bàyyi ndax buñ bokk loon day bokk bàyyi duñ am leen inspecteur mbaa la jërëjëf ndax man dama yow damaa ñëw sa seres jigéen ñi jiital la lépp loo xam ni yaa ngi koy ci lu baax danga koy digal ma ñëw projet bu wàcc nga ma xure kaay la président waxalal say jigéen ndax mënoon ngaa ñëw bëgg ci dara baa nga may laari baa nga ut noo def kon du ma xam ne wax mais nag may bàyyi ak ONG bi ma wax ak moom wax sama soxla ak sama jigéen ba li ñu am ka inspecteur Mbaye dama la ne borom or bu yoree jamaa jamaanteer wa gasal ka kaka may loolu boo koy fa loon du ko am kon inspecteur Mbaye la na yàlla fay jaxase wan de da noo wanu lii moom lañ doon ndëpp li waxtaan di bokk ndey bokk baay diisoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. monsieur le gouverneur monsieur Monsieur le sous-préfet, en vous remerciant de l'accueil de l'accompagnement. waaw damay wax sama mbokk ba pare maa ngi ñëw ci lu gàtt ma nuyoo ginnaaw ma nuyoo gouverneur préfet ak sous-préfet di nuyu monsieur le maire Alioune boobu bi muy wax maa ngi naan maa moom kan mooy. kan mooy photocopie bi original beeg ah ñun ñëpp ay original waaw boobu maa ngi xool fu ma koy jaaree ma xëy na mën a ko rek noir et blanc couleur wala monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant ci léegi ñu dalal di la félicité ci élection yi génn te yàlla may la ci ndam ci kóolute waa Kayar. di nuyu imaam teg ci loxoom nuyu kilifay dëkk bi yépp di nuyu nag samay jigéen mooy fédération bi nga xam ne démb ñu ngi woon jam ca ministère discours bi dama ko lem denc parce que fii moom du du fu ñuy discouré fii moom ay soxo soxo yooyu xaju ci li ma gëm ñu waxtaan ci mbiri mbokk ñu wax leen ni bég naa kontaan naa parce que boo ñëwee say mbiri mbokk gisoo leneen lu dul bëñ yu weex dangay sant yàlla kon nag madame la présidente de la fédération moo tax moo ko ne ko kaay taxaw ñu bokk bàyyi démb ci salle bi moom ku présenté ne ndëwee ma ne ah lu xaw yàlla na leen yàlla jàppale dañoo bëgg ci seen taxawaay yàlla xam na ni prévoir ma woon ñëw waaye bu ma ñëwuloon moom du baax moo tax ñu ngi sant suñu boroom bi ñu maye ñu teew fii ànd nag ak sama cabinet directeur de cabinet jiite ko membre cabinet bi yëpp ñu ngi fi ñu dénk kër gi secrétaire général moo tax moom mu topp bu doon loolu dana ñëw directeur pêche maritime ñu ngi mooy ki ngeen di jokkalante régulièrement ah président démb wax naa leen ko jarul ma ci ñëwaat ni damaa rafetlu seen initiative nii la ñu mën a liggéeyee nit ñi boole seen xel seen xalaat seen doole ndegam ñoo bokk li ñuy bëgg ñoo bokk li ñuy wuti te loolu day yombal liggéey bi parce que état day xam boobaa ñan ñooy interlocuteur bi dafa am solo ci discours bi ma ko liiroon nag naa wax tuuti ci Kayar ni mu niñ ko ràññee ca la coordinateur CLPA bi wax sànq maanaam gestion de la ressource loolu dañ koy rafet bu baax seen taxawaay taxawaay kayaar ci wàllu di ñaan samay service ñu gën leen taxaw gën leen a jàppale inspecteur ñu ngi lay félicité ginnaaw bi ñu ko defee ci fan yi passé defaat ko démb ci ministère bi liggéey dañ koy teg toujours ci yoon teg ko ci dëgg boole ci ubbeeku ah yërëm nit ñi man nag nekkuma sa biir service waaye loolu laa dégg te loolu moo ko déggee dama ciy bëgg encouragé la wax ni yoon bi foofu la loo gis rek dëgg gi mooy mujj féete kaw kon lu ñuy def rek nañ ci sedd suñu borom ba pare def ko ci dëgg def ko ci yërmande def ko ci li waral ñu teg ñu fañ ñu teg président démb da nga wax léegi loo xam ne asaka bi ma waaye tey dama bég tey dama koy doublé jox la ko fii parce que dafa am sama benn mbokk démb xaw ma bàjjen la xaw ma ana gisuma ko ak ñun Fatma Mbaye. mu ngoog nee ñun waxuñoo ministère bi ñun yow la ñuy wax yow mi suñu mbokk. moo waral mënuma gëstu ci keesu ministère waaye man ca la ma yor ah ngoog. ca laa lay tegal lii fii. bëgguma ngeen gëldu ko nag yéen moom seen affaire dafa doy waaw. lii moom nga yokk ca la ca démb. ca la ngeen doon laaj ci wàllu semence ko wane. xam naa nag tegoon nañu ba ñuy tëj seen afeer yi après ñu def lu ñu neex. wax ni xol bu sedd tax te incha allah danañ nekk seen wet danañ laaj seen i doom seen i góor ñu gën a nekk seen wet ñoom it lu ñu mën def pour yombal seen liggéey loolu moo tax président de la république wóolu ñu teg ñu fii kóolu tegoo ba kañ la xaw ma ko yàllaa ko xam waaye li ma yitteel mooy. man seen mbokk laa bi mu njëkkee ñëw fii dama ne man mënumaa def loo xam ne bu ëllëgee dañ naan ak cam ci lañ ma dénk parce que maa ngi liggéey ci samay biiri mbokk sëñ bi boo fi wax di wax waxi mbaaw ak yooyu fa la ma fekk baax du nag ah, fa laa sosoo bokk parce que maa ngi fekk baax fële ci kaay xoolal rek kaay ca Dakar Plateau fi ñu naan kaay findiw waaw ah moo indi moo waral ma jaar ci kon samay biiri mbokk laa ne gestion de la lu am solo la waaye ñëpp ci am responsabilité sànq coordonnateur damaa sore woon sinon dinaa ko ne yow CLPA organisé wul jigéen ñi organisé nga ñëw fi def say plaidoyer yu gudd te def nga ko sa biir biir mais ñëpp a ci am responsabilité ba ci kii yore courrier ca ministère ba am na ci responsabilité ndegam liggéey bi ñoo ko bokk am na ñuy yàq am na ñuy jéem a defar il faut que ñu def suñ kemt lay kàttan wàññi ñuy yàq bu ñu mënul téye seen loxo ñoom ñëpp te nag itam nit da koy seddal te li muy def buy góorgóorlu kay nga ne ko waaw góor bu yaafuusee nag nga ne ko yaay amal ñu waaye bi ñu fi toogeeg léegi luy yàq ñu ngi ci bës bu yàlla sàkk di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ndegam nag loo gis dafa am sénégalais yu takk yu ne ci gannaaw xam nga boo jëlee ab usine ñettee liggéey ay boroom kër lañ di ay sénégalais doo xëy bis ne ko ràpp buñ nee bateau ba fi may wax ak nii tey actuellement amaana ñi ma gën a mere mooy ñi ngeen di duut baaram maanaam ñoo xam ne waa bitim réew la ñi ci ëpp doon seen sago suba du ma fanaan ci mairie et eh, ci ministère kon ndegam ñu ngi def liggéey boobu waaye di ko teg ci yoon ànd ceeg information bu mët sëkk boo xam ne ki ñu fi teg ñu ngi ko koy jox damay wax nag nañu gën a joxante loxo bu ñu yàlla mayee fekkee li ñu naqari dana progressivement dana fi jóge waaye bu ma leen nee tey tey tey tey mu jóge fi boobu maa ngi jéem wax lu leen neex kon maa ngi leen di nax waaye nag dangeen di xool ba may toog ak léegi ah li fi wàññeeku ngeen xam ne ñu ngi ci yoon boobu wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax loolu bés bu ma ko publier di ngeen xam la def lan la kon dama leen damay dalal seen xeet nii c'est au niveau mondial la ressource am na problème parce que tey population Sénégal moo toll ni mu toll te ñun macha allah dañoo bëgg jën nag ñi ñu wër léegi dañoo xam jën démb xamuñu ko woon waaye ñoom it léegi dañoo soxla boo xoolee ci samay exportation yu ci bëre demul bitim réew euh, ay tugal ak yooyu de mu ngi dem fii Mali Burkina et cetera démb Mauritanie bëggu ñoon jën daaw ñu ko lekk waaye léegi daa mel na ñooñu ko gën a bëgg kon loolu lépp day nekk pression ci ressource maanaam soxla yi day gën a bëri ah ñaata gaal ñooy tëmb di dem ba géej xam ngeen ni démb ña yoroon puso bi ngay wax amuñoon nombre gaal boobu amuñoon puissance bi ngeen yor daa ñoo takk ay moteur 60 chevaux ñaar ñett jubali kon loolu lépp il faut ñu xool ko il faut ñu jàppalante il faut ñu waxante dëgg géej gi ñun 718 kilomètres la ñu am mètre yokkuwu ci waaye at bu yàlla sàkk askan baa ngi gën a yokk muy problème kon il faut la yeneen réew yi di def pour di ci génn ñun aussi il faut ñu mën faa dem wax nga ni maam yenn saa yi dañ naan tëj dem béy waaye leer na ma ni moom yi dootul béy moom xamul xamutul luy béy ah? <laughs> ah day béy ah yow moom ku baax la yow moom ab lébu bu baax ni lébu kat dañ naan napp napp rek daa du napp rek dañ naan napp di béy di sàmm ah waaw sama maam bu ko daan woyal naan ko daagu ratt daagu naan lu ko waraloon ah nag yi waaw ah, kon nag yëpp dañ daan mboole kon yàlla ñu yàlla jàppale président ñu ngi rafetlu seen taxawaay ci sa tur maa ngi nuyu kuréel gi yëpp wax ni yéen moom balaa may bégg rek monsieur le maire danaa la danaa la àbb say jigéen il faut il faut ma invité leen Dakar Plateau loolu nag ministre waxul maire bay wax ah pare nañu pare ngeen il faut ma invité bu ngeen fay ñëw nag ngeen ñëwee ni ngeen mel de waxuma <laughs> waaw solo ba jekk ah ngeen ñëwee woon ñu la maam ya xamoon kon incha allah fii laa koy wax dinaa leen invité Dakar Plateau invité suñu yeneen i mbokk yeneen ci nekk yeneen i eh, gox pour que nag ñuy mën di daje nag di waxtaan tuuti loolu am na ci solo boo ñëw na nga indaale doom yéeg ah ak sët yeeg yooyu ñoom it ñu ñëwaale parce que lañ bokk loolu danaa danaa leen ko président nañ ci wax yaag sa bureau ah danañ ci wax ak maire itam. parce que bu ngeen ñëw il faut que maire ñëw. ah maire il mu yegg si. foofu laa koy daanee la parce que guddi na wax ni daal bëgg naa lool. maa ngi sant yàlla bi ma changé soppee sama décision démb. bi ngeen waxee man la ah mënatuma ci dara naa ñëw bu ëllëg ëllëgee. kon nag ñu ngi leen di gërëm. wax ni lii moom xeeb nañu. danañ fexe nu ñu nekkee seen wet incha allah. kii soxna si li mu waxoon seen dooma def lii du ministre de du <laughs> du ministère sama gars yi sama gars yi génneeguñu DC waaw DC il faudra après ngeen yokk seen loxo kon nag yàlla ñu yàlla jàppale yàlla dëgëral ànd bi yàlla may leen ngeen bés bi yàlla sàkk ngeen gis ci gideel financement yi ngeen wax waaye yónni ngeen ab avocat danaa danaa plaider danaa plaider seen cause ci sama collègue di ministre de la femme bu may dugg ci oto bi di ko woo waaw ne ko nag ah am naa fi ay mbokk yoo xam ne bu doon sama sago sax mu ñëw fi ma gunge waaw ñu ñëw seet si leen loolu danaa ko ñaan ne xam naa ni ku sawar la ci mbiru jigéen waaw ku sawar la ci mbiru jigéen kon euh, foog naa ni loolu laa fi dégg ci financement yi kon nag président xanaa rek ñu ñu delloo kàddu gi sama mbokk yi